salaamaaleykum jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a baaxoo ànd ak ñun tey nag euh, ñëw nañ seet si kenn koo xam ne ni duñ leen ko présenté moo di papa mën naa ne di doyen di maam docteur si la papa ginnaaw bi ñu leen nuyoo ñu ngi lay ziar. waaw ah, ñu la fay bu baax di sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi di sant Serigne Touba kontaan nañ loolu boog ñu seet see kon xam naa danga am loo ma bëgg a laaj rek yow noonu nga da am muus dee waaye nag yàlla baax na. jamono jii ku ne gis ne réew mi jafe-jafe yi tolluwaay yii fi xew yëpp muy loo xam ne waxoon nga ko démb tey doo ko dikk yëpp jaaroon nañ ci ñu jokkee yaa doog a ñëw fii ci dëkk bi. waaw loolu day waxoon naa ko bu yàgg waxi mag moomu day guddee àll rek waaye du fanaan àll man def naa ne analyse politique yàlla dimbal na ma ba am na lu ma ci xam réew mi moom yaakaar naa ne pour ñu jubbantiwaat ko daan jafe lool ndax wàcce nañ ko ba mu ëppi loxo. coow li bari na yéeneente ja ay bi bari na xeex bi bari na moom daal musiba la man daa mel ni man dama yaakaar ne xanaa yàllaa ñuy bëgg a alag rek ndax réew moo xam ne mii réewum sëñ Tuubaa la réewum Alaaji Maalik la ay mag ñu baax defi ñu jékki-jékki rek di tibbantey tànk di xastente di xuloo di yéenente lu bon kooku c'est grave am na fi moo la ne la muy sàgganoon réew mi yàllaay wàccee musiba ci ñun parce que jéemuñu juboo jéemuñu ànd ay politique ak ay yii yàq na réew mi mais politique mën nga ko wut ci ngor ak ci teggin am na yoo xam ne jarul xuloo jarul xeex yow doo def nangam yow doo doon nangam yow doo kenn moomul kenn nañ bàyyi yàlla rek yàlla rek mooy joxe yàlla rek mooy joxe li ñuy coow ci réew mi ak ay troisième mandat ak ay quatrième mandat mais nañu bàyyi dajaloo man bu ma ne yow doo def troisième mandat naa fexe ba gañe la rek c'est ku yow nga def quinzième mandat dama nañ la gagné mais yow mënumaa toog ni làmb yi doo ci dugg doo bëre te ma bëgg caa bëre loolu day indi coono rek yàgg naa la ko wax fii nee naa la ku demee ni Sonko bu defoon na Macky defoon ba muy ba muy yoot ci Ablaye Wade kon jël na réew mi bu yàgg réew mi doole ak xatar ak xeex du ko jël il faut dangay ànd ak yar ànd ak teggin kilifa yi bëgg la nit ñi bëgg la xam ne yow mi ku mën a yor réew nga yor réew waaye li ñu bëgg a xewale foqati par force koo wokk mu xuri la te dañuy dañuy indi problème rek parce que mag Sall boo ko bëggee jëlee ci réew mi par force day xeex te xeex jigul kenn dañ leen bàyyi yëf yi nañ dajaloo bu fekkente ni ñoom am nañu majorité bu mën a jël réew mi jaratul xeex naa la bàyyi ba le 24 euh, euh, février 1900 2024 euh, ma dóor la ba nga tëdd. Wade moom ko fi defee daf noonu maa waxoon waxet maa bañ dañ ko bàyyi mais dañ ko gañe ku jeexal rek dem ku jeexalul nag boo ko fi bëggee jeexaloo da indi aw ay rek. yii xew yàq gis nañ ñu yàq ay moomeelu réew mi yëpp gis nga koy fi jaar message bi ngay lancé ndaw ñi jamono ji ndaw ñi ndaw ñi ñoo ko def rek mais est-ce que ndaw ñi rek la dafa am lu jarax rek parce que lii ay ndaw mënuñu ko def ñoom rek parce que matériel boo xam ne bi ñuy dajee ak yooyu ay ndaw mënuñu ko yor. ndaw yi ma riirandoo la ñu moo tax musiba leen dal parce que lu xew rek ñu ànd ci riirandoo xeex ca tam duñ ca jariñ dara buñ paree ñu jàppaleen tëj leen seen ndey ak seen di sonn jaru ko tey la bëy daan dundee ba xëy sax sikki mën na ko dund ba xëy dee ay ndaw it ay ndaw yu am jom lañu nañ jéem a góorgóorlu xam ne loolu jeex amut surtout que élection yi ñu wax naan un an ay 8 mois ak ay 7 mois mais loolu jar naa muñ boo bëggee changé nga changé. nga seet ki nga xam ne moom nga bëgg ngeen dajaloo fol ko waaye bu fekkente ne lu ne dañ koy xeex xoolal nañ def di xeex di xeex di xeex ba dugg Touba xam nga lii musiba la ah dëkk bi dafa am borom yàgg naa ko yenn journaliste yi dëkk bi wuute ak yeneen dëkk yi taalibe yi dañu war a wuute ak yeneen taalibe yi ñi fiy dund dañu war a am a autre comportement xam ni fii du seen dëkku baay du seen dëkku maam ñu ñëpp dañoo xelu ñi xelu ñëw nga ñëw sëñ Touba defal la wërsëg nga war nag delloo sëñ Touba njukkal sëñ Tuubaa ni nga ko delloo ñukkal mooy taalibeem yi nga xam ni ñii am na ñii amul ñi amul jàpp ñi am jàppale ñi am yàgg naa la ko wax fii Touba war nañu def noo xam ni ñun waruñu pauvre mos naa la ko wax parce que li fi li fi li fi am ci ñu sëñ Touba dimbale suñu organisé woon ñun nekk nunu neen di jàppalante di dimbalante di seet néew doole nga taxaw fa ku ne taxaw li nga am nga adduna xaalis bi da ko fi bàyyi rek dangay ngay dee rek bàyyi ko fi mënoo ko yóbbaale àlaxira kon jéem cee def lu baax lu nga fii ñëw amoo amoo cinq cent mille nga jékki-jékki ba am ay ay milliards sa nga den ak ñoo xam ne buñu añee duñu reer nga den koo xam ne ki boo ko joxee mu liggéey mën na laa delloo wala mu liggéey am ni yow di sa mbokkum taalibe nga yéene ko jàmm mais da ngay da nga da nga koy dimbale da ngay xetali sa bopp mais nit ñi defatuñu noonu fii man moo tax sañ sañ sëñ Mountakha maa ngi ñaan suñu borom tabaaraka taala mu yàggal ko fi lool lool lool lool parce que wax dëgg yàlla kilifa la lii mu def nii man dama ci d'accord 400 pour cent Touba dañ war a bàyyi sax politique benn amul lu njëriñ deux mu ngi ñuy noonoo te taalibe Serigne Touba waral noonu moo moroom ndax fii dañoo war a bokk nday bokk bàyyi gëm sëriñ bi yaakaar sëriñ bi di topp ndigalu sëriñ bi di ko war a topp ay politique yi mbedd yi bay reyanteeg di lakk ay kërit xoolal léegi nañu mel rek ñu mel ni léegi ñun bëggante woon te foo musaan dégg murit danaa murit mbokkam rek la faale murit taalibe murit rek la bëgg mais léegi ñu dem ba dugal nañu ci engrenage bi fekk kër jàmbur ma Masamba Ndiaye nga taal fekk oto jàmbur nga lakk loolu day indi coxor sëñ bi nag ni mu dem man sax man sax Mbàkke bu Mbàkke man damay ñaan sax nga boole ci Mbàkke ak lépp nan nu bay ñun politique bi indi lu ñu dara politique bi indi lu ñu dara ñun ñun ñun amuñ ci pol gu ko kenn nekku fi dara amul amul benn responsable politique Touba bu am dara lay def député ngay am 1 million 500 1 million 300 carte de carte yi Touba fait presque 300 à 400 mille personnes da leen mën a gérer. ci bureau bi ci sëriñ bi kon daal waaye waxuma laa bureau de vote nañu bàyyi waaye nañu bàyyi politique ñun politique duñ jàlle sëñ Touba ñuy jàlle na nit ñi gëm yàlla gëm sëriñ Touba liggéey di dimbalante di dund ba xëy dee tàbbi àjjana parce que fii wërsëg a ngi fii lu ne am na fi lu mu jaar politique. mais politique député ku ñu fi fal député wala da ngay daanu rek parce que mënoo yor un million cinq cent ku yóbbu daa mën a benn yor benn koñ ci Tuubaa nit ñi topp la defoo fi xas la ah ñàkk la fayda humilier la si ay ay ay ay ay miettes ah donc boo faloon Tuubaa sax nga yor ay ay 4 millions 10 million par mois boog sax nga mën a xam mais ay 1 million 500 1 million ah nga yor ko. boo demee ñeenti station sax yow aller retour yi ak paas ak kii sa sa xaalis lay jeex kooku loo kooku loo ci mën. nga man moo tax maa ngi ñaan yàlla bu baax di ñaanal sëñ bi yàlla na ko fi yàlla saxal tey na ko yokk man de loolu laa bëgg man moo si yoon daal du ñu wax politique ñun fii Touba ñuy wax sëriñ bi wax toppatoo suñu njaboot toppatoo suñuy mbokk toppatoo suñuy moroomi taalibe dund dund gu neex dee tàbbi àjjana man loolu laa xam parce que am kenn amaluñu njëriñ ci biti. Touba gi amul lu ñu njëriñ eh, amul gouvernement bu mën a amal njëriñ Touba dañuy wax rek diviser nañ ñu xaaj ñu def ñu ay section ak yu secteur rek lu ne ku ne ku ne kii nun dañu war a sant yàlla jéem a nekk benn di dimbalante loolu lañu sëriñ bi sas sëriñ bi lañ bëgg ba taxu ñëw fii dañoo gàddaay ku ne ku kenn dëkku fi fii ñi fi ñëw ñëpp kenn dëkku fi mm-hmm. kon nag léegi ñu bu fekkente ne léegi dañoo bëgg nag dugg ci loo xam ne lii ëllëg ak si bi daf ñuy son daf ñuy sonal jaru ko man bu ma doon man ne li ma ñaan ndax wala ay ay toxal bureau de ba léegi kon ñu ngi politique nanu bàyyi politique nañu politiciens yi bàyyi mun ñu ngi dund Sëñ Tuubaa ngi dimbale amu fi kenn ku politicien yor Tuubaa gisoo ko day ñëw sax du la tane di daw di nëbbu la mu yor ñu ko ci xas di ko ci teg baat yu bon lu ko jar dañuy wéy ci ndigal li daal loolu ngay conseil ndaw ñi ndaw ñi dañu war a bàyyi te ñëw toog ñi xam ne ay taalibe lañu ñi dëkk ci dëkk bi it sëñ bi daf ci am ñoo xam ne wax dëgg yàlla da da leen war a woo parce que ñi fi am alal ju dul jeex ñenn ñi amuñu xam nga saa la woo fii Touba war nañ fexe ba kenn du fi néew doole ñi am alal bu ñu dajaloo woon dem sëñ bi ñu seet def suñu kees boo xam ne gi kees de solidarité lay doon ak ku mën doon loolu liggéey ci murit nga am dara nga ñëw dugal ci kees gi ñu topp euh, sancaan yi topp taalibe yu néew doole yi topp daara yi topp topp topp topp topp euh, hôpital yi mais taxawu nit ñi ñun nañu wér ànd ak wéer ak jàmm rek dund ah dee dem àjjana li ma lay wax waaye lu ne lañuy dugg dañuy sonn rek gisoo man léegi man dama toog man ba ma ba ma ba tey man du ma politikal kenn du ma jox kenn du ma fi reyante kenn mënatumaa yëkkati parce que aw amuluñ ñu njëriñ politique bi amatul njëriñ Touba Touba du am ministre ah Touba du am dara lu mooy ab ab député wala haut conseiller HCCT xaw ma yooyu ay huit cent mille sept cent mille ngay paas dem Dakar da paas ñëw dajalay nit coow jaagar jaagar yi ah faat waxtu dootoo julli sax yaa ngi ci àll bi di politique rek. xam naa ñu occasion jamono yi ko nga xam ne tabaski maanaam sa gis-gis tabaski ren gi ak jur yeeg yooyu nan nga gis tabaski yi yi xeex beeg émeute yi am fii tax na ba kenn ñemeetul fekk fekk magasin jaamur nga dajji ah fekk ku yor otoom di dem nga kar toj oto bi dajji léegi dañ yaakaar ni ay bandi ñoo ne ci réew mi ay brigand ñoo am léegi ku yar sa xar sax yaa ngi naan yàlla bu ñu ko sàcc yàlla bu ñoo jël ko waroom coggal yi ñemeetu ñoo ñëw parce que ñëw ñu dogalee la jël sa coggal kenn xamul kan la parce que fii daf ci bari ñoo xam ne ñi ñu ngi dugg ci biir sa bokkuñ ci te fexe nañu bañ dugg ci parce que man leer na ma leeral yàlla ne xale yi xale yi doon manifester bu ñu leen bàyyi woon nañu manifester pacifiquement ñu raxuñu leen duñu def lii sénégalais néegul ñoo fekk jaamur boo xam ne dafa liggéey ay millions taw nga dëkk ak moom nga taal ko kooku bu ñu leen toppee mu fin rek li ñuy wax ay ñu fi dëkkul laak ay ñu ñu ngemb ak ñu wëyu yoo xam ni ay jihadis yi ñoo lu ne nga dugg Sénégal léegi parce que créé nañ condition yi mais man leer na ma ne yow muy ñemewuloo fekk sa magasin yow nga di ko daj ngay lakk samay samay yére ah di sàcc ay ay ceeb ak i dugub di ko génne loolu duñ Sénégal tey ñu ko dañ dañ dañ ñu rax rek ba moo tax nañu bali nañ sëñ bi nanu digal bu fi kenn politique muy tey muy ëllëg amul benn nañ ñu bàyyi rek ñun de sëñ Tuubaa yor noonu dañuy dund ba dee dem na li ma lay wax rek man bi ma ñëw fi yor moom dara te maa ngi sant yàlla sama morom noonu keneen noonu lépp ak sëñ bi nañu gëm yàlla gëm sëriñ bi toog bàyyi nekk suñu liggéey Tuubaa mën nañ ko organiser ba nga xam ne ku ne dana am barke borom Tuubaa bu ñu ko organiser kenn kuy néew doole dootu fi am. waaw mooy li ma la wax rek dañu géré woon mal rek parce que Touba li fi électeur li fi li fi li fi ressource li fi xal alal ba pare da am nekk dëkk boo xam ne bii dëkku dëkku borom Touba la ba pare mënuñu fexe léegi léegi ñu am soixante ñaata quarante ans d' indépendance personne ne peut résoudre le problème de Touba parce que aussi dañuy bàyyi bañ ne nawet a ngi ñëw ñu jóg te Touba nawet a ngi ñëw yoru ko. bu bu bu bu bu màggal ba balay màggal Touba premier janvier war na fekk nga jóg ci Touba et puis jógeen ci aussi jógeenu yoon waaye ñëw fee ngay taa nga bënn daal di sarale taf yëngal jàpp samb ko fële mu dem loolu du rek da ngay am un plan d'assainissement même su dee dix milliards vingt milliards ñu toog commencé ko correctement te it ñoom ni ñuy liggéeyalee man xaw ma ko Touba boo koy liggéeyal doo dem wuti ay entreprise ak ñoo ne jox leen xaalis da ngay ñëw ci sëriñ bi mu woo taalibi sëriñ Touba yi xam ne ay entreprise lañ yor mën nañoo liggéey tali mën nañoo liggéey assainissement et tout ñu jël li ñu am teg ko ñoom ñu liggéey ko ñoom mën nañ dem ba ñoom ñi nga xam ne ay taaliba lañu koñ bu ne ay engins la ñu yor du jeex ak gradeur pelle mécanique ay ñaari ñaari ñaari camion ñetti camion nga teg ko booru booru booru booru booru euh, fële booru ndaamaatu jël beneen yóbbu ko booru booru euh, gedde ak nga xam ne lu xew ñoom dañuy nekk dañuy dañuy régler assainissement facilement mais dajale xaalis jox benn société société état xamuñu loo fay xamuñu lu ngeen arrangé ah nga defar da ngay defar bu mu ko dee du baax ne dafa am na taalibe yoo xam ne bëgg nañ liggéey Touba mais na leen sëñ bi woo ay milliardaire lañu ne hey yow laa sas li hey yow laa sas barke borom Touba léegi Touba mel ni panal. macha allah mais Touba gouvernement mënu ko gérer parce que parce que ki moom Touba xamul politique yàlla la xamoon ak yonent ba ak jaamu yàlla boo ko bëgg a dugalee ci ay affaires yi te doo ko xam xoolal nit ñi daj ci faju fii nga yor sa saretu mbaam di daw di dàq dépense. nga nga nga daanu damm rek dem ñun la quatre cent mille huit cent mille nga jaay saret ba jaay mbaam ma daal di tumuranke te yooyu yëpp mënuñu toog fii ñun comme que noonu yàlla def noo dimbale ba ñu am daanaka ki gën ci nit ñi nan nan nan nan gën ci taalibe yi nan dajaloo man bu ma amee un million mënu ma ko jeexal wax dëgg yàlla kër gi ma danal ñi ma jënd ba ñaari saako yëpp ñetti saako yëpp jox leen dépense weer lan la may wàññi boo ko def da génn fii rek ñu mbëkk la jël ko doo ci am yàlla doo ci am keneen te ki nga dendal boo ko dee dimbale teg ko ci yoon bu yàgg nga jox ko dara mu liggéey mu tàkk ni ni yow. macha allah bàyyi politique bi na sëñ bi dàq ñëpp bu ñu wootee bu ñu politique yi nañ jaamu yàlla liggéey. ñi xam ne nii li sëñ bi wax ñu naan sëñ bi daa waroon naa lii ak lii ak laa daal maanaam taalibe murid nan la war a nekk ci ndigal. mais ñooñu du ñu ay taalibe yi moo yàq taalibe yi ku wax sëñ bi wax nga naan nangam ak nangam. léegi sëñ bi daa ñu koy analyser di ko di disséquer di ci di ci jaar di ci jaar ba génn ci non ni mu ko waxee nii nangam nangam loolu murit bëggu ko loolu murit santaane wu ko murit ndigal ngay déglu sa sëñ wax la nga def mu tere la nga bàyyi liggéey jaamu yàlla jàng xasaay jàng alxuraan yóbbu yóbbu addiya addiya da ci dokk bokk nag waaw day joxe addiya murit day siyaare murit day toppatoo mbokk muritam man de philosophie boobu laa am man moo tax gis woon ni ma sant yàlla maa ngi féex aw ma benn problème mu àdduna ndax xam naa fi ma jëme sàmb munu maa sëñ Tuubaa munu ma koo xam ba mu jeex waaye maa ngi am aw noo xam ni xëy na bu geesoo dañ ma yóbbaale loolu laa bëgg ma ma am naa ko bokk lu ma gis soo xam ne du yoon danaa ca taxaw la ma ca man du ma xuloo du ma xeex du ma wax kenn lu bon ñaanuma ko yàlla ma 35 ans maa ngi fi kenn mësuma àtte man du ma xuloo sax xaw ma loolu man daal def lu baax yéene la lu baax ku ma gisit yéene naa la mais loolu mooy taalube moo tax da am jàmm ah waaye ne ci mbedd yi daw di politique di carte carte daw nañ ba bëgg a dee kenn considéré wul Touba c'est ça le problème régime bu fi ñëw da ngay ñëw rek wax sëriñ bi rek ndax ko rek sëñ bi yërmande la am ah moom de ku baax la nga génn yow def sa kolojak di jaaxaseek doo fexe ba nit ñi juboo mais bëggoon ñu juboo ñu sant yàlla rek. jërëjëf sant yàlla rek man de man de ndigal lii. man de sëñ bi dama koo ñemee wut waaye dama ko naan na puus ba ndulu nan bàyyi politique fii li ñi yaakaar sëñ Tuubaa Mbàkke gi sax Mbàkke pour mais Mbàkke ci Tuubaa la rek war ñu am ay département département Tuubaa bee ko xewal waaye ku baax ki foofu la juddoo foofu la fekk baax ah nga bëgg nag foofu fekk baax nga daal ne foofu département la. ñun ñu newoon ci déedéet gi fii nga xam ne fii ay àll la woon ñu bëgg ñu ñu bëgg ñu consigné Macky bu ñu amee bu ñu amee lu ñuy bu ñu amee ah man de maa ngi tuub xam wax naa njaaxum de waaye bu ñu ñu war a seet bu sëñ bi sëñ Tuubaa man damay tere ndax ñoom sëñ Tuubaa lañ yaakaar waaye bu sëñ Tuubaa tere parce que ah non man loolu concerné wu ma man de loolu man xaw ma ban façon taalube la ah. yal yàlla dimbale yal nañu yàlla sëñ Tuubaa dimbale. yal nañu delloo si xel yi. yal nañ bay xeex beeg xuloo bi jaru yàlla noppi na sëñ Tuubaa noppi na ñi war a am daañu am ñi war am xëy na du ñu am waaye ñi war a am mën nañoo yóbbaale ñu am ndax loolu doctrine mu sëriñ bi la waaw ñëw ba ci àll fu doon dédd ak dara nga sam fa dëkk dara am fa amul usine amul dara nit ñi di fa dund di tedd dax lekk ñeneen Ndakaaru mais nañ seet loolu xam ne loolu c'est pas un hasard c'est pas un hasard ça. jërëjëf ok jërëjëf loolu. xam ngeen ma nag yéen da ngeen a garaaw ngeen jëf jërë ngeen jëf mbokk yi comme niñ ko waxee woon rek moom bu ñu ko seetsee xaj na danañ gën a gëj wax waaye saa su waxee rek ay njariñ la ndax lii muy wax ay année ci ginnaaw waxoon na ko muy ay jàngat yoo xam ne nii waxoon na ko kon ñu ngi koy ñaanal moom mi ngi xam moom moo di docteur Alioune Sylla euh, gudd fan wér ak wér wérle bañ nañ ko ba. Euh, social lañ ko euh, docteur Alioune la social ndax maa ngi gis benn diplôme boo xam ne nii loolu lañ ko ci loolu loolu lañ ko ko joxe mooy su ma jumul bawal social 2019 lañ ko ko joxoon ma kon nga xam ne kon ci wàllu social ci lay dox kon waa jeex na kon ñu ngeen sant baax di gërëm di leen jox dig daje ba beneen yoon jërë ngeen jëf